ñi nag Mariétou li mu doon liggéey yëpp moo ngi doog a feeñ ndax soo xoolee euh, liggéey bu baax bi mu liggéeyal lii di jëkkëram bi ak liggéey bu baax bi mu liggéeyal lii di famille sénégalaise yaakaar na moom moo tax euh, soxna Bator daal diwul mun dara si moom ndax yaakaar naa soxna Bator euh, amul lu mu fexeel Mariétou yaakaar naa nag moo tax nag résultat bi ni euh, mu am ni si mariatu la ko jëlee ndax mariatu ken nekul comme te diñ koy laal te bam ko sila nag euh, si la di ni di am problème te tamit euh, mun nañu ñëpp daal di koy wor ndax soo xoolee da doon di mariatu tu. tax nag yàlla jël na affaire këpp ko si kawam ndax nee na soxna batoor kenn kii di mariatu nekkul ku ñuy laal te yaayam dafa liggéey si mom te moom tam dafa liggéey si borom këram moo tax mu daal di am résultat boobu noonu te yaakaar soxna batoor su doon dem fii ba sëriñ bu gën aay si monde bi sax du mun ci moom dara ndax yàlla moo ko aaral boppam te tamit euh, te ñaanu jëkkër rek euh, mun na koo jàppale ba fi mu toll nii yaakaar naa nag euh, soxna Bator day jéem rek mais du mës a am lu mu bëgg moo tax nag euh, mu ngi tombé carrément te bis bu daanoo yaakaar naa guy bu rëy mooy daanu ndax guy boo xamante ne yàgg naa sax foofu noonu bëri buri te tamit lu ñëw mu yàqal ko yaakaar naa boobu lay guy moo nekk soxna Bator te moo ngi si moo ngi dëng jéng na jéng bi nga xamante ne bis bu daanoo dina def gën gën a def buri moo tax na sama gaay nag nañ leen patienté xaar saison bi terminé ñu daldi xam soxna botor ban kan lay mujjé dalé ji.